Miles O'Jamdong, Sambe Pesi, Sherifou et Job Sabrates, Jila, Sabel et Pamadjan. Au platine, DJ Pims de Paris et DJ Dollar. Entrée, fausse 15 000, gradin ainsi VIP Prestige Disponible sur Jumia, en livraison chez Rapidos, chez Saveur d'Asie, Comptoir et e et sur festidakar.com. Sponsor leader orange salaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan wasaare làmb mbokk yi tey ñu ngi ci il est une heure une heure trente une heure et demie ñu jëm aéroport Blaise Diagne am ndaanaan bu mag boo xamante ni kenn la ci làmb duñ leen ko présent kooku nag mbokk yi mënoo leen koo xam mu toll nii bu ngeen gisee booy bi jëlal jëlal booy da ngaa bandi nag fu ngeen jëm bañal jëm waaye yaa ma gën a xam fu ñu jëm xaw ma fan lañ jëm non yow tamit xam nga sàmm yow mag bi mooy ñëw noo tudd wan xalifa xalifa mu tudd waaw taalibi Bay si ma Mansour baa ngi hmm. waaw mbokk kon nañ leen dem buñ demee aéroport ñu xool kan lañ fay jël ak nu muy demee ayca let's go l'espoir de Dóor Dóoraat waaye moom mooy leader leader de raad boobu Garga Mbossé est-ce que xam nga ni Sénégal dafa nañ la. am nga xaalis <laughs> Amine yàlla yokk li nam. non maa leen raw xam naa loolu. Garga Mbossé loo wuti woon États-Unis. <laughs> damaa demoon sama grand yi. salaamaaleykum. yaa waay. Garga ñii leewoon la dem la waaye du ñëwaat ah eh, xam nga suñu réew moom yaa ma gën a xam <laughs> yaa moom gars yi loolu la wax. ma sant yàlla ma ragal man ma ragal xalifa mu dugg si ñëw fii yow bëri woo bëri waanoo jóge ñëw lu lay jox ay laa rek ay ah, laaj ko mi ngi nii <laughs> <laughs> de laaj ko mooy mooy xalifa ba nga ne xalifa rek nga jaxal wax. waaw. Hmm. Ah, loo mujj woon wax naa la ko léegi damaa demoon seeti sama samay mag seeti samay mbokk waaw xoolaale àdduna bi tam fu toll sant nañ ci bu baax nag macha allah gis nañ ci lu bëri euh, comme li ñuy wax rek tukki moom euh, da lay yokk ci amul xaalis am ci expérience am ci ay xam profito bu baax di sant bu baax di ziar di nuyu ñi ma fekk ji woon hmm. Cheikh euh, boo ma accueillir dalal ma sonn ci man trop ma waa këram yaayam papaam ay frère am xaritam yëpp grand boss bu Diouf ñu nii ginnaaw yàlla mooy lépp père góor Baye Fall Khalifa maa ngi leen di ziar di wax ne namoon naa leen waaw. Garga nga dem États-Unis ñaata euh, naa def naa fa quatre mois. loo fa doon liggéey. waaw xam ñun moom ay sportif lañ fu ñu nekk rek. dañuy yeesal suñu suñu parce que doole mooy suñu liggéey hmm. fu ñu toll ñu ngi ciy jéem a gëstu daal hmm. et di nga gis lu bëri lu bokkul ak li nga xamoon fii di nga gis expérience bu bëri gis différence su liggéey bi am fii ak bi am foofu ngay xam ne bokkul quoi ngay gis bu baax a baax a baax hmm. gis nga ne tukki am na njariñ ci mbër bu baax a baax a baax même ku dul mbër même ku dul mbër àdduna moom boo tukkee da ngay Youssou Ndour ne da ngay yeesal sa xamel xaw ma hmm. waaw mooy loolu noonu Garga Mbossé nga ñëw mu mel ni am na état boo xamante ni yaa ngi koy nëbb tey wax dëgg ñun ay bët la ñu yor te dañuy gis lan la la qu'est-ce qui se passe lan nga xewle maanaam comprendre ma non état de forme bi nga indi lan la koo bëgg ak foo jëm Bombardier Yékini wala Modou Lo mbaa kan nga soxla dégg naa dëkk bi grand contre moo fi xew léegi lak de guerre kuñ koy jox eh, wax nga dëgg. waaw ah, nañ ma ko jox mu gën mu nekk fi machine rek. Lac de yee nañ ma ko jox. dafa bëri woon ak sa mag jos. waaw mu am lu xewoon. nga ñëw pour jël revanche wala da ngaa ñëw. ah grand daal moo xew. Lac de moom defe naa baax naa ci moom fi mu ne nii moom. Hmm. waaw. bu dee buuxante rek waaw. <laughs> ndax mu euh, Garga Mbossé ñu ci bari jàppoon nañ ne Garga Mbossé ñëw na waaye liñ ci doon waxtaan ci làmb yëpp dañ doon wax Garga Mbossé Sa Thiès Garga Mbossé Sa Thiès askan bi doon na làmb joo ne bëgg nañ ko pare nga pour bëri Sa Thiès. waaw man daal pare naa pour bëri mbër yëpp man moom làmb du yàqoo ci man. Hmm. waa jooju sax newoon naa dootuma wax ci ay mbiram. Hmm. parce que am na foo xamante ni wax ji bu fa commencé yegg du ko jarati. Hmm. man kenn xamee mu ay teesante ci wax fii jox kii jox xaw ma loolu. li ma wax man lu am la te ñëpp xam nañ ne lu am la. loolu lan lan nga wax. non waxoon mooy da doon wiiri wiiri fi mu ne nii sës na. pexe amatul. mais nañ nañ xool grand contre petit rek. mais Balla Gaye 2 biñ ko laajee daf na Garga Mbossé Sa Thiès mooy lamb. waaw li ma la wax la rek ko teg wiiri wiiri jaari ndaari dañoo sës ñoom dañoo sës mais man Lac de la bëgg. Lac de Guiers ku leen boole. làmb ñu boole làmb moom laaju ma ko pour dara encore une fois bu nit ñi yaakaar ne dara la suñu grand la ku ñu jox cër la def na ci làmb lu bari hmm. mais làmb moo tollu foofu dafa soxla benn alternance hmm. ñun yàgg nañ ci buntu làmb te nekkatuñu ay xale yu ndaw tollu ñu aussi ci maye chance parce que mën nañ ne defuñu dara mais il est temps nag ñu prouver buñ ñu yóbboo buñ defee dara ñu xam ne am nañ fi place buñ deful dara ñu delloo ñu ginnaaw. ba nga nekkee fee États-Unis promoteur yi ñoom la doon contacter. waaw contacter nañ ma combat bi ngay wax noonu woo nañ ma ci. woo nañ ma aussi pour avancer te Papa Sow bi mais li ma ci waxoon rek laa ci wax. combat bi ma doon am mooy Sa Thiès. woo nañ ma ci. Hmm. Euh, mais ki ma woowoon ci Siteu Papa Sow li ma la waxoon fii avant may dem laa ko wax. Hmm. demal nga woo ko bu d'accord nga ñoom mais xamoon naa ne moom dafa bëgg lu yomb. waaw. parce que tey noo fi bàyyi say morom dëgg la sa Papa suñu grand la mbër la champion la. Hmm. mais dafa am loo xamante ni moo gën a jaadu combat bi taxaw ba pare moo tuñ si wax dara. Hmm. mais làmb moom ñun ñu ngi ci làmb boo ñu dawee ren it bu déwénee di ñu jël incha allah. gis confiance bu bu bu garaaw ci Garga Mbossé mu mel ni ni ngay waxee dafa am loo ŋànkal xale yi lan la. waaw ŋànkalu ma kenn lenn man ni ma meloon démb ak barki démb rek ba tey. Hmm. mais yëf yi day toll foo xamante ni nag il faut nga wax gars yi xam ne fii nga teg sa bët parce que dafa jaadu États-Unis du fi yëpp te billet bi dafa seer lool <laughs> doo dem yàq fa ay xaalis bu dul jeex entraîné bay bëgg dee ñibbi si fii nag toog di xoolee combat bu diis la bëgg. d'habitude dañ doon gis mbër bu demee États-Unis muy dugal ay vidéo am ñu gis ko fu mu nekkee salle de musculation ni muy préparé wu ni muy entraîné mais Garga Mbossé lépp daf ko nëbb lan moo waral làqatu bu bari bi. non pourtant laqatuwuñ nag ñun xam nga ne naturellement nii la ñu mel ñun ay taalibe lañu am na loo xamante ni temps bi da ko dépassé amuñ jot boobu sax booy lekk naan maa ngi lekk gars yi xool leen booy dugg foo dugg loolu pour lan la. mais entraînement. mais ñun loolu am Maxime Barga nee maay maa ngi entraîné wax ku sumé ku feeñ. bu njëkk ba gars yi da jóge états indi say lex indi sa taat naan li ma liggéey mm. dama yàlla nañ ma baal si wax ji indi sa biir bu rëy mm. loolu xew na léegi mm. dangay ngay dem gars yi toj la bëtt la ba nga mel ni feron bi waaw wow koŋ man dama ñëw gars yi xool ma ne ma yow il faut ñu wàññi sa poids tuuti doog laa liggéey loo sànq da nga ba ma mel ni bul comprendre. waaw dama daw ba sonn daw box xeex bëre te gars yu mën a bëre am doole ñoo fa nekk. waaw gars yu mën a bëre te am doole. naa gis nañ ci ay ouverture yu bëri daal yu bëri macha allah wax nag dafa teel quoi. for naa ci wéyu béy ñu ne Garga Mbossé daa dem pour defi MMA mën nga ñu confirmer la. non loolu moom ñun moom comme li ma la wax sànq rek ay sportif la ñu salle bi ma doon entraîné certes loolu am na fa. Hmm. am na MMA jiu si MMA mooy bu complet bi. Hmm. parce que dafa am ay sport yu bëri yu ñu jël boole ko. Hmm. mooy MMA. xam nga comme ñun moom sport mooy suñu liggéey ñu ngi ci rek lu mu laaj rek dinañ ko def lu ñu suñu kàttan may aussi suñu jot may ñu ko dinañ ko def incha allah. Hmm. ba nga nekk États-Unis dafa mel ni dara ci làmb lan nga gis ci làmb loo euh, moom amul tànk ginnaaw tànk kanam làmb. acteur làmb ñoo ko mën defar ñoo ko mën a yàq hmm. làmb su yàqoo rek communication ko yàq loolu chaque jour moo ko hmm. dañuy set point bu négatif di ci wax rek ñi ñuy jël loolu teg ko au de la scène nañ xool côté yu baax yi àdduna amul luy xëy rek dox di bañ a taxaw c'est vrai que année yi passé wala yii passé melul ne année yi ko jiitu woon parfois day dox parfois mu yéex mais c'est normal daaw boo seetee mbër yu bëri yoo xam ne daaw ñu année blanche daaw def nañ année blanche hmm. léegi dañuy seet la pourquoi li ñu war a def mooy xool solution mais pas topp problème yi di ko tudd pas ñun ñoo ne ci làmb ñoo war a defar làmb am na làmb yoo xamante ni tey heure bi doon na fekk mu taxaw mais àdduna noonu lay doxee parfois day dox parfois mu yéex waaw mais yaakaar naa ne làmb amul tànk ginnaaw. Hmm. fi mu toll nii ñu ci bari ci làmb nee nañ Garga Mbossé dugg si na ñëw na ci cour des grands mais gis nañ xale yi fi mu toll nii ku ci mel ne Eumeu Sène Ama booy euh, ñan euh, kii nu mu tuddee Sa Thiès mu ngi koy tàllal loxo ñuy wax Modou Lo ak Ama Balde jaadu na. ah grand contre daal la gars yi wax mais Modou Lo Ama Balde du grand contre petit peut-être dañuy niveau yee tolloowul mais presque rawan magante wuñ lu bëri hmm. ci li ma xam. waaw Boy Niang Balla waaw xam nga day dépendre ci ci ci Balla hmm. parce que combat boobu xam nga làmb dañ ko structuré wul comme yeneen sport yi bu doon bu doon tey MMA bi nga wax. Hmm. bu nee diw moo fi nekk moo yor ceinture bi day am challenger koo xam ne même bu la gañee benn yoon du tax mu jël sa ceinture wala bu fekkee ngeen xeex te xeexu leen ceinture bi xam nga yooyu day am mais làmb dafa jaxasoo jaxasoo boo xam ne fi mu ne boo daanoon làmb jëpp benn nit daan la da ñàkk loolu xam nga loolu tam la ci gars yi di sóoraale mais nag il est temps aussi ñu alterner comme li ma la wax sànq mais pas quatre personnes yu bëri seen biir rek cenc mënit bi bàyyi ñu ci biir <laughs> yaa ma gën a xam <laughs> te gars yi nag liggéey ba tolloog ñoom mën leen a defal bagage bu wér <coughs> waaw <coughs> fi mu toll nii gis nañ Garga Mbossé mu doon beneen Garga Mbossé boo xamante ni Garga Mbossé bu bees la. waaw dina ñëw moo fi nekk ba léegi parce am na loo xamante ni ñu ngi gis ci yow. Euh. mais loolu faw ñu ñëw xool Garga Mbossé dëgg dëgg Garga Mbossé fan la jëm. ak nan la mel ci làmb waaye Garga mënuñoo waxtaan ak yow ba pare te nga nekk ñoñu daara ne xam ni nga mel ci alxuraan nga dégg li nga xamante ni ñu ngi ko doon wax ci sëriñu daara bi nga xamante ni jàppoon nañ ko fan yële jotoon ñu ne dafa jëng ay daar ndonga daaraam nan nga ci ban ban ban message nga ci am boo xamante ne nga koo lancer parce que xam nañ la ak fi nga toll ci daara. non question boobu moom dafa maa xaw a bett. Hmm. waaw li ma ciy wax rek mooy nit ñi nañu wàññi wax ji. booy wax nga wax ci loo xam. Hmm. parce que dara day xew sama classe gi ku ne di wax xalaatam te loolu day indi ay problème hmm. ñëpp ay sénégalais lañ ci dëkk bi lañ dëkk bu baaxee ñun la baaxal bu yàqu ñun la yàqul dañ hmm. seen nu rafetee rek waaw dafa am mbër yi ma yóbbante ci woon ci yow ne ñu ngi lay ñooñu la ne leen maa ngi fay nee na mu ngi lay nuyu. waaw maa ngi koy fay. nee boo ñëwee ngeen ñu ko Serigne Thiam këram est-ce que ñeme ngaa dem kër Sa Thiès yóbbu ko Serigne Thiam. <laughs> waaw bu dee yóbbu Serigne rek de war naa ko sañ moom parce que Balla Gaye sama mag la te nit ku baax la. Hmm. war naa ko mën a yóbbul Serigne. ah buntu kër na loo <laughs> naa lépp. xam nga fi moom internet bi léegi dara du umpe dégg naa muy wax lu ne ay sawaay nii tànk baaxul lu ne dégg naa ko muy wax waaw dégg naa lépp. ah gis nañ benn vidéo nga def ko dégg naa lépp. léegi naa lépp dégg naa lépp léegi naa lépp mais amul benn problème na liggéey ma liggéey rek waaw bu yàlla dogalee mu war rek dina am bu boobaa dañuy jël wax teg fee jéem a jëf. bu dul Sa Thiès Boy Niang bëgg nga. man maa ngi mbër yëpp. maa ngi pour mbër yëpp mm. waaw ñu maa ngi leen di bëggee bu baax di kontaan aussi seen déplacement parce que li yombul guddi trop mm. euh, ku ne xam na ne dëkk bi xat na ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw vraiment kontaan naa trop gars yi yëpp xaaruma leen woon franchement mm. kontaan naa trop bi nga ñëwee gis sa gars yi loo yëg non dama kontaan trop parce que dama namoon lii <laughs> dama namoon lii trop trop trop billaahi dama ko namoon vraiment kontaan naa di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu sama famille samay mboq samay xarit samay am di jàpp bàyyiwuma kenn ku lim jum di wax gaa yi nag ne xoolal maa ngi nii ñëw naa. koo gën a nam sa kër. <laughs> Ah, sama yaay xam nga laa gën a nam. ah jaajëf jërëjëf. Yé yé le décembre à l'esplanade du musée des civilisations pour un concert historique.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 et Dajou, le samedi 21 décembre sur l'esplanade du Musée des Civilisations.